waaye nit yàlla yi am nañ de sëñ Abdou a nga ne le gis naa la de sëñ Abdou Lahad mu nga ne le waaw taalibe sëñ sëñ sëñ Abdou la de ëpp naa def waaw bu fi doon gis lu naqari lu ko naqari waaw may ma rek maa ngi ñëw toogal xaadim xam nga yow da nga ëpp moo tax sëñ Abdou Lahad nga ne de c'est un intellectuel en plus te bu màggalu tuubaa jotee wala xew événement Touba doo xam ne intellectuel la njaxasam lay sol di majjal dama koy bañ a catu te c'est un intellectuel hmm? kii toog nii ma di ko tere wax moom mu ngi nëy rek ni ngeen ko gisee la moom boo bëggee mu dee ne ko bul wax léegi mu dee ci say loxo xam ngeen ne xaadim moom jeexal na wax baayam nag doon sama wëllëre baayam doon borom xam-xam bu mag tabaar ci yoonu kër maam borom Touba bari na ku mas a am problème fii baayam a la faj dëgg yàlla moom mii léppam nag yàlla xiir ko ci ñun bu fi doon dégg lu koy choqué est-ce que dana fi ñëw sëñ Abdou Lahad mi bu doon dégg lu koy choqué est-ce que dana fi ñëw sëriñ Cheikh Tidiane si nee na nit mën ngaa wax ci yàlla ba jeexal te doo choqué kenn sa sëriñ mën ngaa wax ci moom ba mu jeexal te doo choqué kenn ndax sëriñ si liñ doon jox ñoom ñépp a ko bokk boo choqué nit rek am na gaaral dugal nga gaaral ci biir ak parparloo mu ne te parparloo baaxul yonent bi nee na kuy parparloo bokkoo ci ñun féete moo baax waaye parparloo baaxul yal na ñu yàlla defal sutura man de suma sañoon ñëpp ànd nekk benn lu jafe la nag su ma sañoon ñëpp bokk ndey bokk baay bokk benn xol di yëkkatee ndoo di tegandoo ndax ñun ñëpp jenn yàlla lañ am azza wa jalla benn yonent lañ am rasulullah alquran jii mu ma jox moom léegi moom moom moom sëñ abdulahat alquran jii bii moom la ñuy jàng ca baytilaay alxaraam moom la ñuy jàng ca medinatul munawara moom la ñuy jàng ca tuubaa moom la ñuy jàng ca tiwaawan ca njaasaan ca laayeen ca cene ba fu mën a doon ca kawlax Medina Baye Medina Léona ñépp kaneen foo mën a doon nañ ma wax kaamil bu ñuy jàng bu uteeg bii bu ñuy julli ñun ñëpp suñ direction xibla kaabatul musharraf la kaaba ga rek lañuy dàkk waaw su fekkee ñoo bokk benn yàlla bokk benn yonant bokk benn alquran bokk benn xibla lu ñu war a wutee letti dara walla te tax ñu wuute yi ci des yépp mën nañ ko muñ lante kenn ku nekk ci ñun foo féetee féete la ku la neex waaye waaye ormaalal ñi ci des féete la ku la neex waaye ormaalal ñi ci des sëñ Babacar man de lii mooy sama mission su ma ko réussiree moom laa bëgg su ma ko réussirul yàlla xam ne jéem naa ci li ma mën alxalqu kulluhum iyaalullahi walxalqu kulluhum mazahirullahi kon nag nañu ànd rek te ànd bi rafet nañ nekk benn nañ yéenante yiw nañ bëggante nañ soppante nañu dimbalante lu jafe la nag bari na ku koy wax ci gémmiñam rek boo demee ba jëf jot yaa problème bari na ku koy wax ci gémmiñam boo demee ba jëf jot yaa problème yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim yal nañu yàlla dolli sutura nañu nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax ci suñ diggante ak yonent bi nañ góorgóorlu bu baax ci suñ diggante ak yonent bi suñ mag ñi dimbale nañ ñu ci moom xam nga ko toll ni Cheikhul Hadji Malick lim góorlu ci yàlla ni mu toll jaamu yàllaam liñ ci xam rek wax nañ ko ci waxtaan yi doon wax ci moom ci liñ ci xam te liñ ci xam liñ ci wax moo gën a néew ku daan jàng rek ñetti kaamil par te loolu gën a tuuti ci jaamu yàlla bi muy def ñetti kaamil par bés mosul manqué ba mokkale alxuraan ba nim dugg bàmmeel bii daf koy waqaf di ko xool tàmbalee faatiha faatixa lay tàmbale di ko xool nii boole ci def sunna di jël baaraam bi di teg ci aaya yi ndax yonent bi moo ne booy jàngal xoraan na nga jël sa baaraamu sàmmi sànnikaay di ko teg ci aaya yi ndax ëllëg yowmal xiyaam dafa lay ràmm muy jël baaraamam di ci teg faatixa baqara bennaasi du tëb aaya du jël sidd ba kaamil bi jeex bi mu xool mu tëj ko tàmbalee baqara benn si ci buñ dul xool su guddee mu def ko ñaari rakk benn rakk bi xaaj kaw bi beneen rakk bi xaaj suuf 4 heures 30 matin jot mu def 50 000 salaatul faati yi ñu dooroo salaatu xam nga nelawut moo tax sëñ Abdou Cheikhul Hadj Abdou Aziz da baax ne na daan na wax ne gannaaw gee ba fajar xar ku ma fi fëgg ma ubbil la te duma yeesal njàpp cinq heures du matin mu dem jàkka ña toog ak nit ñi julli ndoor wasifa ndoor ak nit ñi waxtaanal leen tuuti ci fajar gi ba bi buñ gannaaw bu ñu wasifa waxtaanal leen tuuti ba jant bi yëkkatiku mu toog ci jàkka ji def ñaari ràkkay yoor yoor dooru wàkk waaxu uti kër ga su utee kër ga ka moome mu ne assalaamu aleykum yëkkati dépense bi jox ko dugg ci biir néeg bi ñu indil ko sexew bu amul suukar amul xorom amul dara sexewu kese sexew mooy dute bu ngeen ko xamut Cheikh El Hadj nee na moo daan wax Seydul xaaju Malick moo daan wax ne feeg yaa ngi wax sexew feebar bu dut bu dee mën na ko faj sexew jox ma sexew bi waaye boo ne jox ma dute bi sekre bi naaw na ñu indil ko sexew mu naan mos ci tuuti ñu indil ko laaxu ñam bi laaxu sànqal astaghfirullah mu mos ci ñett ñaari baaraamam yi laaxu sànqal bi du am suukar du am xorom cefaay li daqaar lay doon xobu waxuma bengal bi de xob yi lañuy jàmb sotti ko ci mu fas ci ñett ñetti ñett nii yonent bi daan lekkee la daan lekkee ñetti baaraamam yi bu ci jëlee benn ñaar ñett ne jaraw lakk soxna si yal na yàlla fay la te may la barke waañ dal raxas loxo yi ñaanal soxna si jëm jëm jaaro ji wax na soxna si nee si sëñ Abdu nee na su ñaanalaan soxna si ba noppi bu naanee sexew bi ba pare wala léeg-léeg balaa naan sexew bi mu ne ci la naan soxna si balaa ngaa teg sox sexew bi may ma moom ma yeggali sama dogu salaatul faatixi bi nee na bés ñu laaj ko dog bi lan la mu ne cinquante mil salaatul faatixi bu bu naafilaa ba pare ba fajar balaa xaja fajar di xar dina ko def bu jullee fajar jógee jàkk ja balaa dem daara ja defaat cinquante mille salaatul faati door a dem jàkka ja nee na door a dem daara ja nee na su yeggee daara ja ci suuf lay toog nee na benn yoon lañ ko mas a lalal basang waaye kenn ñaareelu ko mais Seydi Hadji dafa ne lii nag góor gi aman mbay Maodo ne ko teraanga la mu ne ko teggi leen minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra ci suuf sii lañ ma bind ci lañ may delloo bu may dekki ci lay dekki nit du bañ cosaanam bàyyi leen ma ma toog ci suuf mu baasaratan ci suuf la daan toog kenn du ko lalal dara mu ne ba bi mbooloo mi bare nag góor gi man mbay Maodo moo ñëwaat ci moom ne ko si tey nag di nga ñu may toog ci kaw indil ko benn siis mu ne ko layal ma ko ma toog ci ko nag ma layalee woon ci guro ma Seydi Hadji Malick daawul yéey guro mu jigi la koy yéey te góor gi aman mbay moo doo ndax bañ aada buñ mosaan mayee soxna bay sedd ci jàkka ji bay seddale guro mu ne baax na Malick de baax na mu ne ñaari yoon daal lañ seetlu benn bi mu ne benn shérif bu fa nekkoon di sëtu shérif Yunus ñuy séddale guro gi fàtte ko mu ne Seydi Hadji Malick ne ñépp am nañ ñu ne ko ah shérif lañ fàtte woon mu ne ku ma joxoon indiwaatal sa bos képp ku ne ci jàkka ji te ma joxoon la kurus indiwaatal euh, euh, guro indiwaatal sa bos fii nee nañu indi guro yépp mu jal ko ci kanam ne ana shérif mu ne ko maa ngi mu ne ko qaddimu quraysh di taqdimuhum am ba noppi kuy door a am door a am ndax sa maamoon ñu ko sant mu ne beneen bi ci des góor ga man mbay Maodo ne ko si yaa ngi delloo guro gi te nga koo jël rek mu ne ko dama ko jàngul fenn ci téere yi ñu ne sëy buñ ko takkee ba noppi dañ ca war a séddale guro soo ko xamee nga wax ma mu ne ko si amul ci téere yi de waaye lii de xam naa ne bu la ko waxee yàlla du ko bañ xanaa mu ne ko lan la mu ne ko barke sëy lañ ci bëgg ndax buñ nee faatiha ñu jàng faatiha ñu seralee xol yi guro yi loolu rek la si waaye du dara mu ne ko jox leen ma ndax faatiha kenn amul njëgam waaw ah, keroog la door nangoo jël gur mu ne comme faatiha bi lañ koy seddalee xol yi kon jox leen ma ndax faatiha kenn amul njëgam mu ne biñ indee siis bi nag Seydi Hadji Malick ne ko layal ma mu ne ko si mbooloo mee bari fii nga toog ci suuf di wax ña ca gannaaw duñ la dikk ndax sa baat dafay naju soo toogee ci siis bi nag sa baat day ko ña ca gannaaw danañ la mën a dégg ndax man li ngay wax mënuma koo jottali ndax xaw ma ko mu ne mu ne ko Seydi Hadji Malick ne ko indi siis bi ñu indi mu ne ñokket daju ci siis bi ne waaye bu ëllëgee bu ko laal yàlla laajee Malick ne ko lu tax gor yépp toogoon ci suuf nga toog ca kaw ma ne ko jottali sa kàddoo tax waaye du rëf leen ci dara ja Hmm? Hmm? yow ngay dem ci mbooloo bu ñu la tegalut fauteuil sax nga mer waxuma la siis de fauteuil sax bu ñu la ko tegalut nga mer xamuñu sama gëdd tegaluñ ma fauteuil nangam ak nangam ba baax na bés dana ñëw de booy dugg bàmmeel xëy na dinañ la dugalal fauteuil ci biir bàmmeel ah nañ waxante dëgg kuy dugg fa bàmmeel xëy na ñu yóbbal la fa fauteuil wala canapé. Hmm? yooyu amut solo nañ bëgg yonent bi suñ cofeel ci yonent bi nañ ko renforce moo fi des de billaahi moo fi mos a nekk te moo fi des ndax yi jamono laajoon yépp ci tur yàlla jamono laajatu ko nit ñi yàkkamti nañ amuñu patience nit ñi yàkkamti nañ sellal waxe noppi nit ñi yàkkamti nañ barab yi sax setatut barab yi sellatut kon turu yàlla yi dox turu yàllaa ngi dox de waaye niñ bëgg mu jëriñoo ko ñun mu jëriñee ñu ko turu yàlla jëriñeetu ko nit maa ngi door a dégg waxu Cheikh Al Hadj bi mu daan wax ne accident yi ci tali bi yi ci kurus yee ko ëpp mu ne te accident tali sax mën nañ laa faj nga wér waaye accident wu kurus mu ne dee rek kenn mënu laa faj mooy jàpp turu yàlla yi di si kër ba kenn du la ci faj salaatu ala nabi nag du dof loo kenn luñ ko gën a baril mu gën a baax gis nga nag salaatu ala nabi foofu laay jeexalee sama kàddu joxe tarixa bi gis nga salaatu ala nabi li muy am am solo nga incarné ko moo ko ëpp solo nga incarné salaatu ala nabi moo ëpp solo ngay julli ci yonent bi ndax dëkkal di julli ci yonent bi te amoo jikkoy yonent bi sa salaatu ala nabi lu mu la jëriñ yow yëngal ne yonent bi bët bu set nga julli ci moom nangami yoon lu la waaye wax nga gis sa bopp sa salaatu ala nabi lu mu la jëriñ nañ waxante dëgg boo taxawee ci sàppe kanam bi sax ci jàkk ji koo ne defaral sàppe bi mu lay xeelu xeelu yoo xam ne mooy boo ma ko waxatee ci biir jàkka ji ci biir jàkka ji koo ci ne def seetlu ko rek koo ci ne defaral sàppe bi dootoo ko dolli te ñu ne yàlla lañu ut si Ibrahima ñu ne yàlla lañu ut si ak feneen fu mu mën a doon génneel ci mbedd mi oto boo ci klaxonné ne ko may ma sax bu soobee yàlla bu la daggalee saaga wuy saxaar dootoo ko dolli piéton buy dox ci tali bi nga ne ko yow fii war bu soobee yàlla dootoo ko dolli kon ana ñun suñ bëgg yonent bi fu mu fiite Cheikhul Xaaji Malik mi ko wax na sëñ Cheikh moom jëfe na ko moom mi ne yaakaaru lim defal yàlla yaakaaru ci dara ëllëg lu dul lu dul sopp bi mu sopp yonent bi rek la yaakaar mu jëriñ ko ëllëg moom doxal na ko julli na it ba sëlmal de ñuy tëgg ndënd diw yooyu yëgle ci biir Tiwaawan diw nee na ku Maalik Fawad di welle jiite amoo julli yëgle ko ba dëkk bi daj coow li ne kur ñu seet si Seydi Hadji Malick wax ko ko ndax dégg nga ko mu ne dégguma dara ñu nettali ko li mu wax yëpp mu ne waa baax na dégg naa leen bàyyi ba julli gee wooy ñenn ci njobootam ne leen gunge ma ñu gunge ko ba ci ba ci kër ji mu nuyoo biñ nee waa ji Seydi Hadji Malick lay seet dafa tiit xam naa turam mais kenn du tudd ndax am nay sët Maodo lay seet mu tiit ne lum fii ut ak li ma ko wax yëpp waa kër gi ne ko ubbil ko rek xëy na jàmm lay dox mu ne Seydi Hadji Malick ñëw nuyoo génne jàllaabe bu rafet mbubb mu rafet jox ko làmb poosam lam am ci alal teg ko ci ne ko dama ñëw di la sant di la gërëm dañ ma wax sa jëf ju rafet ji nga jëfee gannaaw bi it gi paase dégg naa ne da nga yéene lu ne ku Malick jiite amoo julli ma ñëw ci sant la ci loolu nag di la ci gërëm yow mi yàlla baaxee ba nga xam julli gu nangoo gu nanguwul bu ëllëgee nga wax ma nu ma koy defee ba julli gi nangu loolu rek a ma fi indi jox ko àddiyee yi waa ji ne patt ba mu yàgg ne ko ñeme yàlla rek julli gu nangoo gu nanguwul xaw ma ci tus Malick danga maa léjal dama nekk fii di borom xam-xam kenn duma laaj masala kenn duma seet dàll daal yëpp sa kër lañ koy summi lii rek a ma métti waaye defoo ma dara <laughs> dara nga ma defut dama di boroom xam-xam kenn duma laaj masala kenn du ma summil dal dàll yëpp sa kër lañ koy summi masala yëpp yow lañ koy laaj mel ni yow rek a fi ne keroog la Seydi Hadji Malick ay pouvoir teg ko ci loxoom moo lay wan ne jëfe na li yonent bi waxoon tuuti man xaramaka sil man qataaka jok jokkal ki la dog ki la xañ booy mayee jox ko ki la xañ booy maye yow tàmbaleel ci moom ki la dog jokk ko kon waxu la nga dog kenn waafu man zalamak jéggalal ki la tooñ lu jafe la nag lu jafe la ndax nit ñi dañ mën tooñ diñ lay tooña tooñ bi extrême su la yàlla dimbalewul nga yor ci jikko yonent bi nag nga fekki leen ci terrain biñ nekk la Serigne Cheikh si doon wax am tey nga xam ne maa la gën di mbaam mu ne mbaam yu bari rek mu ne te yàlla soxlawul yi mbaam waaw tey nga xam ne maa la gën di xaj mu ne xaj yu bari rek te yàlla soxlawul yi xaj ay nit la soxla waaw tey nga xam ne maa la gën a bon mu ne yàlla soxlawul ñu bon ñu baax a ko teree nelaw mu ne da ko naan tey nga xam ne maa la gën a yiw mu ne te kenn du jàkkaarloog sa moromus gor naan ko maa la gën a yiw danga nga ko koy won ciy jikko ba mu nangul ko boppam da ko koy won ci jikko yu rafet ba mu nangul ko boppam wala fi mu ne ay la yéwén déglu ko ay du yéwén mukk waaye moom moom la dem moo dem ba ay pexeem jeex mu ne ay la yéwén Babacar ku baax la ndax li ma ko wax yépp ci àddina li ma ko def yëpp ci àddina fu mu ma gis teral ma Babacar mii ku baax la fekk ay du yéwén mukk ba yowmal xiyam ay pexeem moo jeex pexe yooyu di jeex nag la la cay may sens nga mucc ci mooy jikko yu rafet bu say jikko rafetee rek pexe mu la nit tëralal day échoué pexe mu nit tëral day échoué waaw bu la nit poodee banaan bu mu la tegal rek doo ca glissé mukk waaw moo tax nit ñi jaruñu ragal nañ ragal yàlla rek la sëñ Tuubaa waxoon boo ragalee yàlla lu yàlla bindati ragal la waaye boo ñemee yàlla lu yàlla bind da lay ñeme taqwallaahi nag ci xol la nekk mooy feeñ nag ci ay cër ragal yàlla ci xol la ne waaye mooy feeñ ci ay cër waaw boo ragalee yàlla billaahi melentaan sax doo ko ñemee rey billaahi wal balaa ngaa pompe yoo sax di nga jàng faatiha salaatul faati wan yàlla ne ko yooyu dañ maa lëjal rek waaye gënuma leen waaye nag dañ maa lëjal ñoo ma tere nelaw ñoo ma tere te dañ may indil sibiru da ngay wax ak yàlla balaa nga leen di pompe sax xamoo ah mooy orma ah, yàlla maa ngi nii jënd yoo tox de pour fas yéene pomp yooyu waaye gën gënuma leen de yaa ma may nag ne bu ma leen reyee dara duma ci fekk waaye maa ngi lay géñal ci sa màggaay ne gënuma leen dañ maa lëjal rek nag te aw ma ci menn saafara lu dul pompe leen maa ngi lay ñaan nag rey bii ma leen di rey séddaleel ma leen ñoom faatiha beeg salaatul faatiha ñoom yooyu yi may rey rey séddaleel ma leen faatiha bi ak salaatul faatiha bi te xam ne yéenewu ma leen dee mukk dañ ma lijjal rek te aw ma ci meneen pexe yow yàlla nag am nga ci pexe séddaleel ma leen faatiha salaatul faatiha bi jox ko yàlla mu jox ko yooyu ah, noonu la ñuy reyee yow ak leneen lu mën a doon boo koy rey wanal yàlla ne ko wallahi gënuma ko yaa ma siddi ma def ko waaye du ngéneel ci sama kaw ci moom <laughs> garab sax boo koy naan boo bëggee mu jëriñ la noon ngay def da jàng faatiya boo mënut salaat nga jàng salaatu ala nabi ne yàlla garab gii may naan giñ naa ne mënumaa wér waaye bu ci sa coobara duggee rek ma wér maa ngi lay ñaan nag roof ci sa loxo te sagalee ko médecin bi ba bu ma delloo ci moom mu ne ma ça va maintenant léegi me léegi wér nga yàlla sagalal médecin bi te jaarale ko ci garab gi door a naan ne bismillah du noonu nañ yàlla fu ne la feeñal ko fu ne fu ne la feeñ mais yow yaa ko war di feeñal fu ne wane kàttanam wane mën-mënam wane sañ-sañam wane ne bu dul moom kenn mënul lenn kenn mënul dara lépp ci loxol yàlla la nekk waaye am na fu mu mbir yi lii rek la ah yonent bi dawa feebar bu ne am na lu koy saafara la koy saafara nag ci loxo yàlla la ne waaye asbaab yi mu ngi fii jëlal ci asbaab yi nag te wékku ci yàlla yal nañu yàlla dolli sutura yàlla bu mu nekk suñ mujj gàmmu yàlla bu mu nekk suñ mujj gàmmu yàlla bu mu nekk suñ mujj gàmmu yal na yàlla fay ñépp ñi gàmmu ji woon ak fu waay mën a gàmmoo ji waaw léeg-léeg yàlla yal na yàlla fay ñépp yal na yàlla fay ñépp ah, ba ñiy jéem sax di gàmmoonte te xëy na nit ñi di leen critiquer ndax tegawul ci sharia wala tegawul ci sunna xëy na màggal yonent bi rek lañ ciy jublu waaw bu buñ leen kenn saboté nañ leen bàyyi ndox yu yàlla ku koy raas fu ne nga koy raasee sëriñ Cheikh nag nee na bu nit ñi xam mukk ne yàlla ngay ut mu ne buñ ko xamee daañ la ko utle ba mu fa fu réer bu nit ñi xam mukk yàlla ngay ut mu ne buñ ko xamee daañu la ko wërle ba mu fa ndax ku ne daf na naan jàppal ci salatul fatih kii ne la yaa mën azharal jamil kële ne la yaa sattaaru dana la bàyyi ba min yu nga jël yaa kër yi karimu yaa xafaaru ku boole ñam yépp sa biir daw <laughs> waaw ku boole ñam yépp sa biir daw buñ joxee tarixa bi ba noppi nag ñu bàyyi suñu doom ji sànni ci ay kàddu yu kàddoom rek bu ko defee nag ñu julli suñ jullee rek yeeweeku ba àjjuma bale di ñëw incha allah moo ko ma Xuma ñoo bokk ndey ak baay du noonu faatu kon xam nga li may wax fenn amu ci ana Mansour gi waaw bu ñëwee mu mu dëggal ko ndax Sénégal dafa neexul waxee xam nga wax naa leen léegi ne leen na tiijaan yi neena taalibeem balaa génn àddina na fexe ba xam ñam dëkkal ci àjjana ñan lañ wallahi man de moo tax ma yaakaar ne àjjana laa jëm ndax moom mii baayam sëriñ Alfa Xuma moo xëy bés woo fotokat ku ci jëkkëram nekkoon France ndey ah kañ kooku la wooy damay fàtte tur ba ah Carno Ñang moom la woo ne ko am nga foto mu ne ko ah, mu ne ko kaay photo ma maag Chérif ma toog nii ci kaw fa chaise mu toog ci kaw fauteuil bi mu ne ñu foto ñu xaw ma lu mu ci jublu de mu foto ñu ba noppi mu ne ma dama doon laaj mu baal ma ci waxin bi dafa xawoon nos eh, dama doon laaj sama borom sama dëkkandoor ci àjjana mu wan ma biig ne ma yow la ma bëgg ñu foto màndargal ko fii billaahi wal kitaabi billaahi lazi laa ilaaha illaa huwal hayyul foto baa ngi fii ci kër gi Mansour Gueye moom la ko Cheikh ma jox mu indi ko ñiyee ko jeex na Aline ñiyee ko cadré dama ko cadré sax pour sama njaboot ñi li ma lay wax ni 89 la ca Ndar baayam moom Serigne Alpha Xumma Cheikh Tidiane magam bu mbokkal ndey ak baay la woone ko seede ko Cheikh Tidiane Xumma magam bu mbokkal te Serigne Xumma ku doful jinne jàpp la xam nga ko koy sëriñ xumma ca ndar ndax ña fa tegoon tànk ci la bokk wax naa leen fii ne leen ba muy dund nekk ci diggi dooleem bu mosaan génn dem da boo ñëwee ci kër gi fekk ko fa da ngay wax cent sa da ngay ut cent franc wax ci sa soxla sànni ko ci kër gi bu ñëwee ñu ramaseel ko cent franc yépp mu téye bu xëyee suba nit ñi di xëy si di ko nuyu ku ñëw mu ne la sa cent franc démb nangam nga ci waxoon ak nangam mu ne mu ne la tàllalal wala demal fële nga sangu te ñëw ah ku mën loolu na def cent franc cent franc la di yow nga xàmmee cent franc bu Babacar xàmmee cent franc bu Imam Diaw xamee cent franc bu Chérif Ibrahima xàmmee cent franc bu Sidi Ahmed ca kenn ku ne lam ca waxoon nga répétel ko ko. wilaaya googu yomb na baayam sëriñ alfaxuma daan na ko def ca ndar kilifa yépp foofu lañ daan daje ci moom léegi koo tudd mu mer moo tax duma tudd kenn danga ci jublu yiw sax tudd nit mu ne ba mu tuddee sama baay dafa maa xaw a suufantal ndax nee na sama ba waaye sëriñ xumma ñu baree daan ñëw di sukk ci kanamam billaahi wal ci lu ma fekkee ci ñoo xam ne ay boromit daraja lañ ci réew mi ma xam leen ñii guddi lañuy ñëw ñii tàkkusaan wilaaya ga foo ko natt weesu na ko moo ma wax ci gémmiñam ne bi bi gis seexu na Tijaan yi yàqazatan mu bind ijaaza jox ko boobu ñëwagul ndar wax ma ni ko seexu na tiijaan yi tarbiya ba mu yegg ci yàlla génnee lettre bi seexu na tiijaan yi bind ci xattu yaddam wan ma ko ah, sori woon nañ ma moom de sëriñ xuma demal nga laaj ko njobootam gi moom mii ak Moodu Moodu mii xalifa Muhammad bi xalifa bi tey ak Cheikh Tidiane magam mi ci topp dem leen ngeen laaj de sori woon nañ de maag sëriñ xuma gisuma ku ko ëpp wilaaya <laughs> yaayee moo yeey de Abdoulatif lii mu wax Abdoulatif Guèye ma ko njëkk wax damay wax ba pare Abdoulatif ne ma yow ñaata at nga am ma ne ko yàlla rek ko ko xam ah ma ma indi sama ko ràbbe ne ko sam papa laa ko jële kurus gi ma réeral ko Touba ca Touba lu mat fukki lu mat euh, ànd ak lu toog ñu ne ma ma ngi ca barabu waaw moom dañuy yàgg. waaw waaw waaw. waaw. nga ne Abdou Latif xaadim waaw baax na. wallaay ndeysaan waaw. waaw Abdou Latif xaritu ñëpp la ak imaam Masamba Diop wallaay ndeysaan dëgg la man mii maa ko sang Abdou Latif man mii di wax ak yow maa ko sang ah photo yaa ngi fi photo yaa ngi ci internet bi man ku ko balancé ci internet bi sax moo ma jaaxal waaw ah, mu ci internet bi mu ngi ci internet bi man am naa ko sama portable yaakaar na Mansour Gueye sax am na ko ndax dañ ko génnee jox ma ko maa ko sang ba génnee ko teg ko ci bunt bi wallaay yàlla xam na ko maa ko sang nit ku baax ku bëgg yonent bi waaw wallaay jërëjëf Seck maa ko sang ba génnee ko teg ko ministre bi ñëw boobu président Macky Sall bii moo doon président assemblée nationale jiboo Leyti Ka moo doon ministre de l'intérieur foto yëpp maa ngi maa ngi taxaw boobu da mbir a ko waral nag ah, dama ko sang ba pare ñu bëgg ma football man colonel bi ma bëggoon a football ma ne ko boo ma boo ma gémmee génnee ci salle bi du la raw billaahi bi ñépp di ma xool ma ne ko boo ma génnee ci salle bi Abdoulatif du la raw ma ne ko gii ndënkaane la mbaa danga ma gis ak sama mbubb yooyaf yi rek tax nga ne bu ma fi taxaw ma ne ko bu ma fi taxawut kenn du fi taxaw imaam Masamba Diop bii moo ñëw ne ko bàyyil kii dem leen laaj imaam Masamba Diop moo ñëw ne ko bàyyil kii ma ne ko fii de bu ma fi génnee boobu président moo war a ñëw ak yeneen ak yeneen ñu bëgg maa génnee ci protocole bi ma ne ko fii bu ma fi génnee du la raw ma ne ko ndënkaane la lim ma wax danaa ko def ba ba mu koy teg ci buntu bàmmeelam door a reculer waaw ma ne ko dinaa ko def te kenn mënu ci naa ko def ba ci buntu bàmmeelam ba bi ko rawan di jullee alaaji rawaan mbay biñ ko duggee ci corbia bi ma jiitu ko ba fiñ ko bi ma taxawee ci buntu bàmmeel bi ba Basirou Diagne grand sëriñ de Dakar di nangu laa door a rëkkile ndax loolu la ma santoon mbubb bu verte boobu ma sol keroog laa ko njëkk a sol keroog laa ko gëj sol ba fi ma toog di wax ak yow ndax mbubbum alaaji Abdul Aziz da baax la te moo ma boole woon ak Abdou Latif mbubb moomu mbubbum sëñ Abdou la keroog laa gëj sol mbubb moomu 2008 ba fii ma toog di wax ak yow Mansour a ngi foto bi après nga balancé ko góor gi déedéet bi ci internet bi waaw photo bi bi ma ànd ak sëñ Alpha Xuma mu ngeeg Mansour waaye bu Abdoulatif bii ci internet bi xam nga lu tax nit ñi looy wax dañ koy weddi bañu ma sax ko weddi mais nag luy jëriñ ñëpp jarul weddi loo xam ne njëriñu ñëpp la waaw man man bu ma sangee Abdou Latif après daf may teree dee man après mais lam dënkaane woon la ne naa ko ko defal génn na àddina taxawu naa ko ci surtout am naa fulla ju day nit taxaw ci ba kenn du dox sama digganteeg moom imaam Masamba jóg moo ma jëli ah waaw Abdou Latif daawuñu xëy suba ba jant bi so te gisante wuñ maak moom amul président Macky Sall bi Abdou Latif fa ko jàpp ci loxo indi ko ci man 2007 keroog bi mu de bi defee caricature ci yonent bi xaw ma yéen a ngi koy fàttali ko wala déet mu taxaw ci woote grande mosquée poème yim ci bind poème yim ci bind yëpp balaa mu koy génne man la ko jox ne ma vérifier ko ba pare poème yi mu def ci yonent bi ba léegi mu ngi ci sama valise def ko ci feuille yu yu vert ne ma comme yonent bi léppam vert la ci feuille yu verte laa koy def woote grande mosquée am na ku ko wax keroog ci benn jotaay bu ñu nekkoon mu ne ma témoignage yi nga def keroog laa xam ne Abdou Latif day dem te effectivement moom ma ko mu ne ma man dootuma gudd fan Abdou Latif ma ne ko lu tax mu ne ma xajoowu ma ñuy xas yonent bi ndax man damaa bëgg yonent bi keroog la ma wax ne yow lay sa maam de waaye giñ naa ci yàlla gënoo ma ko bëgg ma ne ko ah kooku nag dañ koy seetaat c'est vérifiable nii laa ko ko wax ma ne ko kooku moom c'est vérifiable mu insisté ma insisté ma ne ko nañ yóotu haute tension bi ma ak yow foofu laa koy natte nañ yéeg ci poto bi rek haute tension nga téye ma téye courant bi 1000 volt yi 1000 watt yi ku ku ma ci gën a gën a bëgg yónnante bi kaay ñu dem fii rek ci poto lamp yi kii baayam sëriñ xuma am na genn góorug murit gu daan ñëw ci moom xaw na moom dina ko fàtte wala déet fàtte xuma bi góor gi dama fàtte turam papaam moo ma wax ne moom ni mu daan nattee ku gën a bëgg sëñ Tuub ku ko gën a bëgg Bàmba xam nga naka la boo ko ne maa la gën a bëgg Bàmba mu ne ah loolu duma ci werante nañ dem ci eh, fu garab am rek day yéeg ba ci ci mbaxtal la garab gi ne maa bëgg Bàmba rek plongé dara du ko dal dara du ko dal kum ci mos a essayé rek yow boo demee ba mu plongé nga ne ko yaa ma ko gën a bëgg kër sëriñ xuma bii la daan nekk bàyyam moom ma ko présenté woon bëgg bàmba lañ ko tuddee woon moom foofu la daan nattee bopp man ci haute tension yi laa koy natt billaahi ku ma weddi na yaa ma gën a bëgg yoon bi kaay ñu dem ci haute tension yii ci euh, sans fil yi ñu yéeg nga tiye ma téye Ah, yonent bi ku ko bëgg dara dalay dal dara du la dal yàlla nañu yàlla dolli sutura ñu ñu bàyyi suñu